fekk ko fii ci pàkk làmbaay fekk ko ci bërëb bi nga xamante ni macha allah bërëb bu bu yéeme la ci moom ñu fekk ko fii bëgg waxtaan ak moom luy jëmal làmb kanam wala li maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum sëñ Djili maa lay siyaare Djili Kebe sax su ko tur bi rëy na sax bi na <coughs> gërëm sëñ Basiru Diouf. Diouf a ñoo ko bàyyi Diouf a ñoo ko bàyyi. borom mbég mbég taar. bi. di sant sama bopp. may sëñ Saalum Diouf. di gërëm nag yàlla. di sant yàlla jiili damay sant yàlla di gërëm yàlla chaque jour damay sant sunu borom bu baax parce que lii lépp moom la. di ko ñaan rek chaque jour na ma yokkal succès bi yokkal ma xiiwal yeeg yëpp parce que nit ko baax la mu ngi may jàppale bu baax a baax a baax. kon yàlla suñu borom alhamdulilah rabbil alamin di sant aussi Seydina Muhammad sant sallallahu alayhi wa sallam di sant sama ñaari waajur nag sama ndeex sama baay ñu baax lañu ci man ñu may jàppale ñaanal di sant sama sëñ nag sëñ Modou xa xabaan Mbakke si Abdou Karim Mbacke sant maam Thierno Birahim borom Daaru di sant nag fii ma nekk tey muy Paco Lambaye Pikine xam ne sama xarit bi ma fi jaay muy Saliou Ndiir xam nga fii li tax kontaan dikk fi samay bokk laa seet si samay bokk lañu Paco Lambaye di sant lambaay lambaay yëpp parce que dañoo am jom sant waa reefan nañ fi aussi parce que ñun li ñu xam mooy liggéey moo tax tey ma ma ñëw fii ci Pok Lambaay def ko fi sant waa reefan ñëpp sant waa lambaay di sant képp ku dekk rek ba ba bu baax a baax di sant di di nuyu sama xarit sama doomu ndey Kara Mbodj international bu mag boobu seeri Fatou Mbaye. wala suuflee looyul tuuti. looy sunna tur yi naxay naa wax. looy waatal. sunna di gërëm Kara Mbodj Séeri Kan. barke si fa teewu ma ko. waaw xam naa loolu moo tax ma la waxal. di gërëm Kara Mbodj. Séeri Kan Séeri wuli mbay waatal di ko gërëm di gërëm Abdoulaye Mbaye sa wàllu di gërëm Naar Mbodj. Magi Kala la. mu ngi fii. mbuur wul ni mbuur ay waay sénégalais yi dimbali leen ba ngir yàlla suñu bokk internet yi ay waay tey laaj tey rek la ñuy doyal mu ngi mbooj uh-huh. ku baax nag jigéen gu baax uh-huh. di sant aussi doomam nga xam xale daf ma bëgg mu uh-huh. sëñ Saaliw doom naal mbooj la di gërëm Mamadou Ngom Niang daas ministre des sports Mamadou Ngom Niang séeri awat kan madame Niang di gërëm sama xarit Baye Saliou seen Pikine Baye Saliou directeur général bu mag boobu Jamil Sam Dame Diop Ngor di sant waa senegal gépp alhamdulilah rabbil alamin li neexul waa Pikine maa ngi di gërëm waa Italie waa Espagne sokono stress booboo Diop maa koy sant bu baax a baax di gërëm waa Italie ñëpp tey am ku woo Italie dafa ma teraanga bu rëy muy Nguuda Juuf. Nguuda Juuf tey dafa ma woo dafa teraanga ak rakam maam Cerno Juuf jërëjëf. jërëjëf Wouly mbokk yi ngeen comprendre rek. xam ni Wouly deuxième bi ma xool. attaaya la. neex na mbokk yi. bu ngeen gisee Wouly macha allah nga xam ni. macha allah neex na amaat amateur yi buñ ko gisee kontaan ci moom liggéeyam bu rafet ak mën a waxtaan ak mbokk yi waaye bu leen yaakaar ni mukk li muy def nii moom moo ko tey ndax amul kenn ku am teyef di di wax nii muy metti waaye te saa yoo ko laajee rek mu waxtaan te loolu bokk na ci li la may tur. Euh, euh, jiri san yàlla barke Seydina Mohamed. tey ma ko. kenn du tey mais am Sénégal xëy na bu ñu bay defar yàggati barke Muhammad Rasulullah mi ma gëm. man xam naa ci teyu ma ko billaahi wallaahi taala. dafa am yoo xam ne du ma ko mën a li ay mooy F. Hmm. damay te. Hmm. ay M ay B. Hmm, ak parcelle. P aussi damay te. ay P. ay F ay M ay B. ñeenti lay wax yi daa vraiment. sonn naa trop quoi. man de xam naa ne ñetti moom boo koy wax. di nga dër boo nee Parcelles mënuma dina dina métti ci yow. mooy boo nee sëñ Modou xabaan. <laughs> waaw. waaw xabaan baa xabaan bi mënuma ko. parcelle bi aussi euh. métti na. Euh, <laughs> métti na jërëjëf <laughs> léegi wulli Euh, nga expliquer ñu tuuti ci sa combat ak Gambie ak Lirou Diane lan moo xew ba nga jël liiru Diane. Lirou Diane man yegg naa koy dëkk. moom mu daw parce que dama dama gis muy break Xaadim Njaay kat gi tappale. xam nga tappale yi mu def Gambie yee yegg na koo def. ma ne kii ko mën man yegg koy dëkk mais moom nanguwul woon parce que xam na ne man dof laa. Hmm. sama combat day tàngoor. moom musuma sawar alhamdulilah. Hmm. musuma d'accord jël ma. Hmm. bi mu dee nag ba ses ma am bës macha allah moom itam si la ñëw jël ma pour ma ma ko may ko loxo. Hmm. kawaat bu mu taxawee mu ngi wax di lambal di ñàppaaxu ak fere mi toll ñu tey. mu ngi lambal vraiment. décembre bi nga xam ne muy dugg ci beneen at bu bees muy lambal yooyu yëpp naqari ma maanaam hmm. ma ne kii daal il faut ma ba doog ba mu béy lambal ci parce que at mii dugg nag janvier lambal da ko fi interdit ma ne ma rey ko doo ko tey ba mu <laughs> dee moo tax tey keroog ma mel ko mën naa ko jàpp daan ko mais dama ne kii naa ko ba mu daanu parce que boo ko mu daanu xëy na vraiment at du lambal. janvier bi. léegi yow lëbbal doogu tere ko lëbbal doogu. taxul nga jàpp ko di ko dóor dóori metti yooyu xanaa nga di ko liirum bàyyi lëbbal yi leexu ba. wax mënu ci moom dara xam nga dafa dëgg bopp. waaw wax naa ba sonn bàyyi lambal bàyyi lambal mais mu gën a rakkaaju tey tey di ko diimale téeméer man ah kii nag xaar door naka i fay faj. door moo tax ba ne kii tey xaar ma door parce que door neexut mais doon day nit nit na lii soxor nag quoi ma soxor. <laughs> bilaay damaa soxor jàpp mag di door mais bëreetu ma waa lii neexul. <laughs> vraiment. léegi yow bi ko jàppee ci digg géew bi. Mhm. arbitre bi siffle yéen ñaar. Mhm. da nga bëggoon dóor ko mu daanu wala parce que. xeex bi nga doon xeex. dafa métti torop di gërëm Modou Lo. Mhm. ak Papis Xereñ Lo. di gërëm Demba Xereñ Lo. Papis dama fekk ci géew bi ne ma kii tey. bu ko may doole bu mu daanu. moo tax ma ne kii naa ko ñëpp dama parce que vraiment nekk mag aussi di lambal vraiment ça mag du lambal ma naan ba ba mag la bëre. kuy bëre ba mag fi mag. mag du lambal. mag du ñàppaaw. <laughs> ma taxoon vraiment keroog ma kii naa ko doo ba mu daanu mën naa ko jàpp daan ko ah. su ma ko doon jàpp di ko daan mais aussi ni muy dawee neexul jàpp fii gars yi bay sa ma da nga taxaw bi nga jigi saako mais doo taxaw parce que ni muy dafa am doole. mais wulli la boo tax boo attaqué liiru jaan ci géew bi mu daw ba génn saako yi. doo ko bàyyi da ngay dem ba ci ginnaaw saako yi di ko dóor mel ni ko xamul règlement xamoo fu ñuy dóor xamoo lu ñuy dóoree. yow da ngay bàcc rek bàyyi bu daw. ni muy ni muy arrière moo mutti. daw yi moo mutti ba doo ma contre sa bopp bu pare arbitre Gambie xamul dara. waaye hmm. arbitre Gambie xamul tous yow nooy ci Gambie laa mos a gis kuy arbitre sop laa fa. Hmm. lii du ñàkk classe. Hmm. en tant que laa fa moo mu nag ku nekk moom <laughs> kii jëppi naa ko trop fii bu Sénégal la su arbitre bu ñu gënee saako yi arbitre daw intervenir mais mais Gambie dañuy wëcc ñu ñaar rek xam nga aussi. ñaari mbër. Mm. boo leen ba bayee mais dañuy xeex même bu dee ci biti mais arbitre bi moo na teel a ñëw. intervenir waaw parce que boo attee ñaari mbër boo sifflee da ngay daw dugg seen. diggante duggal sa loxo arbitre bi boo la tegee loxo sax nga xam ni. Euh, mbër yi dañ teg nañ. loxo Gris Bordeaux amet seen moo moo gën a wax xeex ba ginnaaw di xeex mais arbitre ci ñoo daw intervenir. Mm-hmm. moo tax ay arbitre Dakar képp ku naan seen seen Dakar aayunu bi laay. boo demoon Gàmbi nga xam ne ba xam ne ma daan. Hmm. xam nga li neex mooy nga def li ngay def réew mi yëpp teg seen bot. Hmm. Gàmbi am na fa ay xarit mooy Imel. Hmm. mu ngi suwet Amel papa. Touré mu ngi étalé mu ngi Angleterre Dibel mu ngi Gambie mais Papa Touré sama xarit la. Balaaka sama xarit la mu ngi Angleterre ak Inel mu ngi Suède ak Khady Diatou Sow White House Khady Diatou dafa baax keroog woo na ma ne ma damay wut beneen drapeau jox la ko. parce que nit ku baax nga ko am jom nga. Mm. combat bi kenn daanut. kon liiru su amee drapeau yooyu tam da wut beneen drapeau jox la ko. mais drapeau boobu montré wul dara wane wul dara parce que liiru keroog moom la arbitre bi jox ndam ndam nag donc koy nangul arbitre bi moo ko jox ndam te arbitre c'est le maître du terrain kon nangul ni liiru jaan daanuloo ba nga ne wal wal mi ni ko wolof di waxee waaye tamit am na ndam ci loxoy arbitre. waaye loxoy arbitre dara xam xam li am solo. Hmm? loxoy réew mi. ak loxo yi yàlla. mi yëpp xam nañ ne maa bëre maa xeex li ñu jaan bi ab soufflé ba ba ba lam bi jeexee def fa toujours daw arrière kese. Ah, na dala doon jam de ñëw. jam jam jam du taxaw jam du taxaw jam la ma di am te moom sax fii fii ma tane nii. non wéwi la. xoolal nii nii tuuti la woon mais man sama yaram mooy tàng tàng goo xam ne sama day day gën. man dama koo dóor ba nuwi am na ñetti fan di nelaw kii moo ñàkk fayda mag mu soxna mag mu dóor yi ma ko dóor tuut ma lay ko daa mu kay amoon na wee amoon na wee arbitre loo yab bàyyi ma njoon parce que daaw dama ne Gambie daa fas seen champion ba loolu na naqare leen ren nu yow ma en. gami moom doy na sikk. tout kon da nga bëgg wax moo ëpp wee Baye Mandione. fuuf loxo bi yëpp la. <laughs> loxo bi yëpp la abit gan na maa doo xam ne xamul dara loxo Lirou Diane yëpp la ba dama coxaas fii Ndiol amut ba ñu ñëw daga fi Lirou la ne am parce que wee ma gaañ. Lirou Diane moo tapet. Baye Mandione avant muy dugg ci avant muy ñëw ci làmb ji. gisee ngeen. non non. non non. gisee woo leen benn yoon. non non. Gambie man gisuma Lirou Diane. gisuma Baye Mandione. Lamine sama daal ñoo nekkoon. Lamine dama naa kii sax jiile. gis la ku dëggu la. parce que Seydina Mohamed journaliste yi ne Sénégal kenn gën ko ci dëggu. Samba Lamine Samba dafa taxaw carrément wax leen li am wuli kenn war koo jóg defet nit da ngay dëgg te tax. Lamine Samba du jëy kenn. du wax kenn loolu lu ma ta wax dafa taxaw wax leen dëgg kon Lamine Samba maa koy sant bu baax di ko gërëm moo baax moo gole Sam. kon est-ce que nekkul yow la faraloon rek. non day wax dëgg parce que lii yaa mënul suuf di tricher ñu ñu après ñu. jox ko victoire. c' est trop sonal arbitre bi naan ko jox ma bu dee nanguwul ñëw jox ma victoire bi jox ma victoire. kon yaa ko si gis boobu yeneen arbitre yi ñoo ko joxewul victoire. parce hmm. que Seydina Mohamed. yeneen arbitre ñoo ko joxewul victoire mu taxaw ma ne ko jox ma victoire bi loo xam ne nag loolu la ma ene. Hmm. ma ko yow soxor nga jox ma xam mañ bi même ki ñu ko ci CNG bi yor temps bi. Hmm. temps CNG bi dëkk na may ko. trois minutes bu ñëwee nga victoire mu nii ak la femme kii moo soxot bon lu Habib Gamiela ma kii lan laa ko def. amul bu ma ko xam kii li mu bëggoon kii maa koy rey mootul tus tëdd na yëpp na ko joxawul ñaar Habib si dina ko ne eh, joxawul victoire bi mu ne cel tey ba jóg mu ko jox victoire kii moo soxortu bon. mais Lirou biñ koy jox victoire bi euh, arbitre bi sifflé gul nga dóor ko. daa soufflé. non non daa. loolu mooy yii xam. waaw daa yéex. daa mooy xamul dara. da naa sama tàng nañ ñaar góor. dégg sax nga ma dool ama tamuy kii sama loxo. la war a rek. avertir ma kii dafa soxor. la war a jox liiru jaan ndam. du mooy ba defal mënu ci dërëm. abit gamee mënoo ci tus. làmb ji est-ce que gàllaaj jàpp la ci. wuli da ngaa de. xam nga dana koy dë. bi mu xaaree ba mu des. benn suural la ci dugg xaw nañ maa jàpp. xam nga xaw ma la mu xaw doggee jawaay. Balla Gaye ngay attaqué Balla Gaye attaqué Sa Thiès laa soxla. man defal tànk defal tànk looy attaqué Balla. dinañ bañ ma ne Sa Thiès. door yi ma door li jox li yu ko loolu laay door Sa Thiès. Sa Thiès am na jor nga de. Balla Gaye yow bu la kii jàppee bu bu bu bu bu boo ñaa jàppee dina xam. boo ñaa moom laa faral. moom nga faral. waaw lan moo tax nga looloo Balla Gaye yow lan moo tax. muy sama xarit. waaw ñëpp xam ko si sama xarit mu am doomam ma dem ca foofa. ca ngente ba mu fa rek liy jaan. Balla Gaye ne mu fa rek liy jaan lii est que rafet na. saa ca nit ku baax la. Hmm. waaye bala. Hmm. booy tey nga dee booy jaar. léegi yow luñ la loo yëgee li jàpp lañ la ci bés. waaw ci géew bi xaw na tayal quoi xaw na tayal mais boobu yëpp. gëm ma ko. Mhm. te ba ba pare combat bi barke Bamba certificat médical laa yóbbaale. Mhm. dama am naa quinze jours entraînement quinze. lu tax loolu dama fi si bureau mais dama entraînement bopp tooy parce que lamb bi dama ko fonk mais ay bu ay bés mhm. eh, duma duma ba mu ne naada. dégg naa am bëgg Dakar na. am na mbër boo fi doon attaqué fan yële bi nga jugee ci liiru jaan nga ni moom nga bëgg kooku kan la. xamatuma ko sax. Batika bu Faas. <laughs> Batika Batika dèjà bu tëntu mais kooku vraiment dama ni mooy loolu ma tooñ mu nekk fi di mer ay na def na ànd ak yar man maa maa gën a yaru fuuf xam ñun di kaf. Mm-hmm. lam kaf la ak soo ak ree mm-hmm. mais du wax ju ñaaw man. Mm-hmm. kenn mësuma dégg ma wax. bu ñaaw ci mbër. ba ba ba ba tikal hmm. sama grand frère la quoi. Hmm. mais dama ko tooñ. Hmm. parce li ma ko wax aayul quoi mais dégg naa mu mu tontu ma. xas sax jamaïcain. mais nag jamaïcain yorut ñaar dërëm. pare amut yéere te barkeel jamaïcain yéegu sax interview boobu yéegu ko sax. mais loolu tooñ la quoi vraiment ak aussi même dafa bët tooñ sax boy bi nekk li tiwi Lamine. moo tax aussi dama la kaf ak moom mais mag boy kaf ak moom te xamul kaf. nga ba ko. dëgg wax sax ay waxam. bëggoon nga ko boole ci ci lobby boobu rek. waaw mu ñëw bokk ci kii bi neexal ko. di rek ko xam nga day day di rek ko diis na te moom vraiment yéex na day <laughs> di ko ma bëggoon koo jox rek mu gaañu. mais amul chance naa ko ba. donc promoteur bu la promoteur woowee bëgg sa combat yaak Batika. noppi na noppi na. ligg leen ko moom di. marché la ne di jaay parfum yu neex. parfum yi <laughs> loolay bay parfum mille cinq cent. mille franc téeméer yooyu de de Fallou Ndiaye woo na liggéey lu mu mën. non moom aussi nit ku baax la. Mm-hmm. sportif la aussi. Mm-hmm. mais xam lam di kaf di neexal. lamb loolu sax looloo. lamb jaay la quoi mais man li ma ko wax. du mm-hmm. wax ku yara dëkku. du wax ku ñàkk. kersa. sam grand frère am na mbir yoo xam ne tey bu buñ ma doon laaj ñoom sax. du ma wax ci ñoom ko mais moom dañoo yàgg moom saan dem si yàlla sam ma fa ma ma xari mhm. papa Sow mhm. ay maam biram ñoo yàgg quoi man sama baay lañ quoi bu yàgg. Mhm. moo tax biñ ma lay ci moom ma ko tooñ quoi di wax noonu mais xëy na daa xamut kaf quoi. mais garaawul Adama Diouf aussi dof la tuuti xaw naa ko mën naa ko faj. Adama Diouf. waaw parce que Adama weex la comme ni ma ko waxee vraiment man li ma mu mooy moom aussi fecc mu ni muy def di fecc quoi. gu hmm. jéggi gu jéggi. man teen vraiment lu teen la arab bi vraiment fekk yooyu jéggi jéggi xam nga di teen yooyu vraiment def c'est dangereux ci réew moo tax ñoom ñëpp laa bëgg a def faj ko aussi mu weer ñu weer faj mi teen bi tooy fi suuf xool ñu ci suuf mais di xool ci kaw léegi yow léegi yow ban yow léegi ban fecc nga bëgg bëri di ko fecc fecc bu rek la fecc bu yem mais di fekk di ñappaaxut dama koy arrêté. di fekk di teen dama koy arrêté. ku ko def ma faj la. man dama fi nekk pour régler situation fekk. Hmm. fekk di ñappaaxu. fekk la. fekk di teen di ku ne kooku dafay fi dof fekk la. mais attaque dama koy arrêté ci làmb bi. fecc bu jaar yoon moo tax xaw damaa rëy <laughs> dama koy nangu. loolu Tapha Mbeur fecc bu jaar yoon bu garaaw la dootuñu rëy ma. di ah yow Tapha Mbeur nga bëreek moom wulli mu dóor la nga daanu nga tourné waat dem nekk ak moom ak xarit ba mu def open press nga fay waaj pour dem. non nit ku baax la aussi. Hmm. parce que daan na ma. Hmm. bu ma daanee ma am ko ak big poto mu jàppale ma mystiquement. Hmm. xam nga loolu mooy grand cœur. mu ko baaxul loolu doo ko nit nit am ko maa nga jàppale ko. mystiquement sama waay la. le vingt neuf nag dama am décoration. Assane Ndiaye damay décorer le vingt neuf ci stadium Iba Mar Diop maa ngi ci woo ñëpp kañi production kañi production itam damay décorer le dix janvier ci grand théâtre ak Sidi Diop mag Golden la musique sénégalaise kañi production damay décorer le dix janvier mm. waa li neexut ñaari décoration ci door nit ba mu la tedd Assane Ndiaye le 29. Kandi production le 10 janvier. grand théâtre ñaari décoration yu neexul. neex na maa ngi gërëm ñëpp. Hmm. di gërëm moo baax moo gore. Hmm. tey sëñ Basiru. borom mbég mu bilaahi moo baax. gisee ñëw ci télé ñëw ci site yi bokk ceeg ñoom waaye. ma nga ku fi rëbb de presse. sëñ Bassirou la moom léegi si si yëpp a ngi réew def de waaye ñu ñëw a toppandoo waaye numéro un sëñ Bassirou wasaare lam mu ngi lam jaa ngi wasaaroo ci réew meeg bitim réew lii neexut ci wasaare revue de presse boo xam ne man si chaque jour dama koy déglu revue de presse bari na courant du pile. Hmm. courant du war a pile de. ba say courant gars yi pile. gars yi ay pile lañ. pile day décharge buy dugg si yaa ngi yaa ngi gis lu muy nuyoo buy dugg si ci revue de presse. mu hmm. koy waxee. lépp lay wax. dara saraax ci xew-xew la. saraax neexul. <laughs> saraax. xew-xew la am. mais nag gars yi bu ñu répété kenn du xam sax li ñuy wax. ba si doo fi ne. Oh. lam jaa ngi wasaaroo. Hmm. ci pokk la ma ak fépp. li neexul. jërëjëf neex na kay. bas ma dem. baax na ni yaa ngi ci. am na 24. 24 kon bàyyi ma tàggatoo. jërëjëf wulli kon ñu ngi lay jaajëfal. di li dangaa baax. di Kébé sa sax su ma wax ko. tur bi na sax bëri na. Basirou Diouf. ma koy gërëm di gërëm comme ni ma ko waxee chaque jour international bu mag boobu Mohamadou Kara Mbodj. Kara Mbodj ñu ngi koy nuyu l' international. Kara Mbodj bi laay moo baax le international bi. Serigne Fatou Mbaye. bàyyi ba ba ba ba ba ba alam Mbacké doomu ndeyu Abdallah May Sawali Jon doomu ndeyu Baay Faal rakku naar mbooj kala mbooj yaa baax yaa gore naar mbooj yaa baax yaa gore ak sa ak sa doom ji sëñ Saaliw Seydou Daabo maa koy gërëm Seydou Daabo moom moom jigo taxi mm. jigo taxi ay machine yu baax lay jaay service gold man man ci laay sol ci la may jox may sol ma machine bu xew la bu bees tax siis gold moo xew fii mu toll wee baa xewi na yëpp a xewi léegi léegi eh, siis gold moo xew. moom la liiru moo tax ma duma ko ba mu tëdd léegi xewi na liiru moo doon sol wee baa wee du du doon siis gold ak wee ñoo doon bëre Goldu moo door Weba ba daanu li neexul si Gold moo xew Seydou Dabo moo ko andi gërëm Cheikh Omar di ko teg si Tidiane Dabo di gërëm Baye Sall di te commercial bu baax boobu Baye Saliou Sène Jamil Sam di gërëm sëñ Mor Kéemaan sëñ Mor Kéemaan sama ma la bu baax sëñ Mor Kéemaan di gërëm ma ma ma ma ma ma Masila Diop la marabu handicapé ma ma Masila Diop maam Mor Diagne maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax a baax saa Touba maa ngi koy gërëm di gërëm Baye di léegi léegi di gërëm ñi may jàppale ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp alhamdulilah. jërë ngeen jëf mbokk yi gis ngeen wulli wax dëgg sama xarit la saa yu ma ko woowee rek mu ñëw ndeysaan ci wooye faalem ak bëgg gim ñu bëgg bëgg wasaare làmb wasaare làmb ñu ngi lay jaajëfal di am kontante ak mbégte bu baax a baax a baax mbokk yi seen mbégte rek mooy suñu bànneex saa suñ saa suñu xëyee rek ñu ngi leen di wutal lépp loo xamante ne buñ leen ko dégtalee ngeen kontaan am mbégte ak kontante noonu lañ leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqalikoo ba ëllëg incha allah ak beneen daanaan ci wasaare làmb wulli wasaare wasaare. wasaare mi neexul. wasaare mu ngi wa lam jaa ngi wasaaroo sëñ Basiir mu ngi koy def revue de bu jaar yoon bu nekk ci temps li neexut. sëñ Basiir yaa yaa gore.